jëf mbokk yi bàkk ba jib na générique ba départ na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi ñu leen di nuyu waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safa wasaare làmb rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax di am kontante ak mbégte jàkkaarloo waat tey nag dañu am invité boo xamante ne invité bu spécial la muy Fadam Taw Fadam Taw mi ngeen xam mel mi nga xamante ni macha allah bu waxee ci làmb ñëpp nanguwul ko ci li nga xamante ni mu ngi koy wax mu nekk loo xamante ñu ko ci jaajëfal bu baax a baax fadamtu bi nga xamante ne bu ñu demee ba ba Bombardier bëre daan am ndam ne ah lii de fadam sax am na ci loo xamante ni dégg naa ko mu wax ko ci mooy wane ni ñu mbër yu mag yi sax ñu ngi koy bàyyi xel ci analyse yu rafet yi nga xamante ni mu ngi koy def ànd ci yar ak teggin mu war ñu dalal ko tey di ko nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu weel waxtaan bi fadam maa ngi lay nuyu baax di la Asba Jili maa ngi lay nuyu di la jox sa bu baax di ñaanal réew mépp di leen ñaanal jàmm. Hmm. di ñaanal njabootu làmb yëpp Fadam maa ngi di nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax. Hmm. di ñaanal diaspora bi bu baax a baax a baax nga xam ne nii ñu ngi nekk ci bitim réew. di xam ne ñu ngi wétalikoo ci waxtaanu làmb yi ñuy def. Hmm. ñoo xam kayit leen fa ñoo xam lépp leen fa téye yàlla na leen ko yàlla defal ci barki yent maa ngi nuyu nag association bu mag bi nga xam ne ci laa tënku ci wàllu làmb muy jeune amateur. Mm-hmm. di di Sénégal nga xam ne sama président moo ko jiite. Mm-hmm. di nuyu suñu bàyyi Modou Bey mi nga xam ne nii bokk na ci ñi fa gën a nekk mag ak ñoom grand àll. Mm-hmm. ñëpp fa dem ak leen seen wàccuwaay. maa ngi nuyu nag samay kilifa ci wàllu làmb. maa ngi nuyu Serigne Ba borom tubaa ak Jolof di sama kilifa gu mag. sëriñ ba maa koy nuyu di ko ñaanal jàmm bu baax maa ngi nuyu Mamadi borom bi Bignona maa koy nuyu bu baax Mamadi maa ngi laa nuyu di la jox sa wàccuwaay. Hmm. maa ngi nuyu surtout Bangeer boobu nga xam ni sëriñ Babacar Ndiaye borom Sengeer Fada maa ngi lay nuyu di la wax ne maa ngi gën dikkaat loxo yi nga yokk may ñaan. Hmm. jërëjëf sëriñ Babacar Ndiaye maa ngi nuyu di la jox sa wàccuwaay. di wax ne la nuyul ma waa Banger yëpp ak waa Sengeer ñu ngi wàcc wàcc ay ziar bi buñ kortee jàmm képp koo xam ne taalibi nga te nga nekk Ndakaaru rek ñu ngi wàcc dem Sengeer ci ziar bi nga xam ne ñaari fan lay doon bu gën a jege ci lépp dañ ko yaatal. incha allah rabbi jërëjëf jërëjëf euh, gannaaw loolu mbokk yi euh, Fadam mi nga xamante ne bu ñu nee le 27 mars xel day dem ci bis bu rëy bis bu mag bis la boo xamante ne lu làmb ñëpp ñoo ngi koy xaar mu dox ci diggante Bombardier le B52 de Mbour boroom guddi guddi mbuur boroom jeexaat foofare doom delloo fa sab loxo. Mhm. mooy daje ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène. surtout Samba Xoyaan bi Demba Ngom ak Demba Ngor Demba Farima jigéen. Mhm. ñoom ñaar ñu nekk ay mbër yoo xamante ne ay ndaanaan lañ ci làmb. Mhm. Fadel Fadel boo gisee ñaari mbëri ci seen open press seen wàccaay euh, lan nga may wax ci loolu. waaw. Euh, dañoo ñëw ci combat boo xam ne nii tey jii di combat boo xam ne nii combat bu lëndëm la. Hmm. muy diggante Eumeu Sène Bombardier. di combat boo xam ne nii tey jii képp koo nekk ci axlu làmb yaa ngi bàyyi xel. Hmm. dinaa la dee dara bàyyi jili wasaare nga bàyyi ci xel bu baax. Hmm. làmb jooju soo déggee ma ibbeeku na dalaa lëndëm ñoom ñaar bës ba ñu bëri woon bu njëkk ba te Eumeu Sène daan ko benn bés ki teguwaat. ñoom ñaar le 28 lañ bëre woon tey jii ñu ngi bëri ñoom ñaar le 27. Hmm. te tey muy combat bu jaxasoo ci ñoom ñaar. Hmm. ba ji li dinaa la jël dara nga dégg ko. Hmm. ma seen gis naa ko ci open de presse ma gis ko mu serein lool. indi athlète. ñu bari ñu xamul làmb ñu ngi dégg ñaan ama seen dafa oyof ci combat bi déedéet. ama seen oyof a ko jég bàyyi ji li wasaare. Yoff moo ko jig ci combat bi. moo ko jig ci carrière ci carrière am waaw. mais combat bi day bëri koo xamante ni poids lourd la kenn du ko wéree. ba ji li Eumeu Sène saa yu diisee ci carrière am yëpp combat yim ci diis yëpp la koo ñàkk. Hmm. combat rek la koo ñàkk la ko gañee benn combat la Eumeu Sène diis ci carrière am ko te ba mu koy gañee daf su fa sonn lool doo ko gañe muy diggante ak Zallo keroog bi muy xar jëppit Zallo dafa indi muscle boo xam ne nii kenn yaakaar woon ko ci moom. Mhm. waaye carrière Eumeu Sène boo xoolee combat yu Eumeu Sène diis yëpp da koo ñàkk combat yu Eumeu Sène oyof yëpp da ko gañ. kon tey jii oyof baax na ci carrière Eumeu Sène. Mhm. dina possibilité Eumeu Sène li mu def ci làmb dina ko def ndam nag yàlla ko yor. waaye avantage bi nga xam ne nii tey jii dina ko arranger ñu wax ci lii ak lii ak lii ak lii bàyyi ji li wasaare. Mhm. am na solo Bombardier nan nga ko gisee moom it open press am waaw bàyyi ji li gis naa am gis naa Serigne Dia Bombardier ca néegi Mbour. Hmm. ñëw ci ëpp mu ñëw ci open press ba def muscle boo koŋ ci yaramam. Hmm. bàyyi ji li am dafa jom euh, Bombardier dafa jombi ci làmb ba pare ko jommalaat ci làmb dootu yomb. Hmm. waaw ndax dafay jël défaite yoo xam ne nii ci làmb jël ci victoire yoo xam ne nii défaite mëntu koo saf victoire mëntu koo saf. déedéet. ngontam ga ak Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye numéro 2 ba léegi nit ñaa ngi koy fàttaliku. ngontom gaag Gris Bordeaux ba léegi nit ñaa koy fàttaliku. waaye maa daan Eumeu Sène maa daan Modou Lo. astafurla daan Balla Gaye numéro te Modou moo daan Gris Bordeaux. waaw Balla Gaye moo daan moo daan Gris Bordeaux moo daan. moo daan Modou Lo hmm. daan Gris Bordeaux deux fois. Balla Gaye 2. moo daan. Modou tamit. waaw kon tey jii ña daanoon bo ña daanoon Bombardier. Hmm. Bombardier rectifié na ci rectifié na boppam ca ña ko daanoon. dëgg la hmm. ko daanoon moom ña ko daanoon. Hmm. ña leen daan la Bombardier daan. maa daan Modou Lo. waaw maa daan Balla Gaye. waaw loolu rek doy na. doy way te ñooñu ñoo daan ña daanoon Bombardier. Modou Lo. Ah. moo daan Eumeu Sène deux fois. moo daan Eumeu Sène. moo daan Gris Bordeaux deux fois. moo daan Gris Bordeaux te ñoom ñaar te ñoom ñaar ñëpp ah mm. mm. mm. mais bu ñu ñëwee ci mbër yi. Mm-hmm. ñoom ñaar. dañuy mm-hmm. njëkkee ci bombardier. Mm-hmm. bombardier lan mooy fooram ci làmb ji diggante ma Eumeu Sène. bombardier tey jii su ma ko ñëwoon ne ko kaay bëri Eumeu Sène dafa am limite boo xam nii fa la bombardier yam ci biir Eumeu Sène Hmm. am na loo xam ne du moomu ko ci combat ak Eumeu Sène. moom Bombardier waaw. muy lan. Bombardier buy bëreeg Eumeu Sène fekk xeexut fekk jàppul ngemb bu xeex bu mu bëree. Hmm. bis boo déggee ñu ne Bombardier def na quatre pas te jàppul ngemb mu ngi ci danger bu gën a mag te daanu mën na ko cee fekk. moom Bombardier waaw. Bombardier tey jii su ma koy doon na ko kaay bëreeg Eumeu seen li ma koy gën a sant. moo naa ko daggal lewaatoo ba tollu ko Eumeu seen seere ko dox ci kawam. waaye dox ci kawam bi nekkul da ngay def ay pas déedéet da ngay jëree ko comme keroog bu ñu bëri tàjjee na mu jëree ko ci kawam. Mm-hmm. da koy seere ba tollu ci digg bi mu jëree ko ci kawam seere ko yàq li Eumeu seen indi woon yëpp. mais bu koy jëree ko nekkul day ñëw di xeex ak moom day bëgg Eumeu seen xeex daw di ko song si mu tëru ko pour mën a am ngemb pour bëre Bombardier mën a ibbeeku. kon bëre Bombardier jàpp rek moo ko. mooy ibbi bëre mooy ibbi xeexam fekk jëfu ko mu ngi ci danger. fekk Bombardier jàppul ngemb Eumeu Sène mu ngi ci danger bu mag a mag a mag a mag a mag fekk jàpp ngemb Eumeu bu xeexee mu ngi ci danger fekk jàppul ngemb Eumeu bu bëree mu ngi ci danger. Eumeu lan mooy forum ci combat bi. Eumeu Sène liy forum ci combat bi te jii ci carrière komba bi bokk na ci combat yi war a gën a gaaw ci carrière am. Hmm. Eumeu Sène bi bokk na ci combat yi gën a gaaw ci carrière Mhm. te am na mille sens pour poursuivre biir combat bi nu mu gën a gaawee pour rey ko mu dee. moom Eumeu Sène moom Eumeu Sène. Mhm. waaw ndax Eumeu Sène li mu war a bëreeg Bombardier su ma indi woon Eumeu Sène ne ko kaay bëreeg Bombardier day seere Bombardier ci digg bi. Mhm. Eumeu Sène dafa war a seere ci Bombardier ci digg bi te warut a def déplacement gauche warut a def déplacement droite. ndax bu ëmmal seen déplacé wu ci benn côté bi am na mille chances pour jël crochet long wu te crochet boobu jëloon na ko mu échec te koo jëlati ci làmb. Mm-hmm. crochet bi mu daf ko jël mu échec. te li ko dal taxoon mu jël ko mooy déplacement. Mm-hmm. déplacement taxoon mu jël ko. kon tey jii ak lépp lu mu métti métti métti métti métti ëmmal seen warta jël coup boobu te coup boobu li tax ëmmal seen di ko jël ci déplacement la ko mën a jëlee. kon Eumeu Sène dafa war a poursuivre Bombardier ni mu gën a gaawee songu ko ci digg bi woo ko ci xeex ci kaw bu Bombardier di fayu Eumeu Sène am na mille chance pour songu Bombardier bu ko songee bëre ba tijjeeku Eumeu Sène nag bu fekkee daa songu Bombardier ci tànk nekkul finition ba ci tànk ba lay jeexee déedéet Eumeu Sène pour mu daan Bombardier lay àgg ci ndiggam pour mën ko xaajale ci moom te lépp lu mu bëgg def ci digg digg Bombardier dina ko mën a def mais Eumeu Sène warta mooy Bombardier muy réfléchir ci deuxième souffle hmm. gis nga dinaa ko fii waa ji lu combat bi gën a gaaw arrangé Eumeu Sène. combat bi waaw lu mu gën a gaaw arrangé Eumeu lu tax ndax Bombardier premier soufflam pour mu bu ciy génn de balaa boobu du réfléchir te pour mu bañ a réfléchir ci làmb Bombardier Eumeu Sène mën na ko juyloog moom nax ko daan ko ci làmb waaye bu bàyyi ba Eumeu ji du ko ci deuxième lam ñu àttaleen ñu dem ñëwaat ba ji di am possibilité ci combat bi di nekk à l'aise pour Eumeu Sène daan ko ci làmb dootu yomb. Mhm. kon tey ji su muy doon Eumeu Sène dinaa ne ko Bombardier bi da nga koy seere ci digg bi woo ko ci xeex fa force bu fayoo nga jiyaloog moom song ko ci tànk xaajale ko ci ndigg li jëm ko sukkar bi wala nga xar jëppit ko wala nga rof ko ca xabal dàq ko mu dem mm-hmm. waaye bis boo bàyyi ba Bombardier nekk à ci làmb jël loxom bi dugg si biir ngemb am na mille chances pour jum loola waa jëli lan mooy faiblesse Bombardier ci combat bi Bombardier faiblesse bi gën a nekk danger ci làmb ji mooy mu def trois pas te jàppul ngemb. trois pas attaqué Eumeu Sène te jàppul ngemb mooy premier danger bi. kon li ko daloon mën na ko dalaat mën na ko dalaat. Mhm. ndax boo seetloo Eumeu Sène combat ak Bombardier bu njëkk ba dafa cokkaas Eumeu Sène ci kaw moom Eumeu Sène dafa cokkaas Bombardier ci kaw. Mhm. arrière trois quatre pas. arrière mhm. trois pas Bombardier dox quatre pas ci kawam xaw dégg nga am déet. Eumeu Sène daa arrière trois pas. Bombardier def quatre pas. Bombardier def quatre pas. li waral loolu looy tax Bombardier am accès Eumeu Sène am accès ci kaw Bombardier Mhm. avant Bombardier réfléchir boobu fekk na Eumeu Sène daan na ko ba ñibbi ndax boobu lecture de combat la ko la ko bëree woon ndax li mu bëggoon ci làmb gi dafa réussir woon. Mhm. waaye pour Eumeu mën a daan Bombardier pour Eumeu Sène mën a nekk ci làmb ji mooy combat ma Bombardier Eumeu Sène waru koo bëri lu romb cinq minutes. Mhm. ndax Bombardier Eumeu Sène bu arbitre sifflé warta bàyyi Bombardier dox ci ko kawam Eumeu Sène avant Bombardier def benn pas war na fekk Eumeu Sène seere na Bombardier bu ji li muy gën a def action rek di gën a oyof ci Eumeu Sène. Mhm. waaye lu Bombardier di gën a dal rek di gën a dis ci Eumeu Sène. combat bi mu yàgg ak mu gaaw kan la gën a avantage ci moom. bu combat bi lu mu gën a gaaw Eumeu Sène la arrangé. lu tax ndax na bëri bu gën a rapidité saa jàpp ngeen ba Eumeu Sène saa mu jàpp ngeen mën naa koo daan mën na ko daan ci biir bëri. Hmm. waaw capacité bëri romb na loolu. Hmm. te Bombardier combat bi combat bu mu war a dal la. combat boo xam ne nii fekk jàppul ngemb waru cee waru cee jël benn benn benn action boo xam ne nii action de risque la ndax poids am li ko dalee ci ndiggam jëm ci kawam dafa am benn poids boo xam ne dafa xaw a fange poids boobu noonu tey ji bu yëngatoo rek bu fekkee daa dox ñaari pas beneen beneen poids ba ca boppam yaramam moo koy imposé mu doxaat beneen pas. Mm-hmm. kon Eumeu Sène kon Bombardier dafa war a moytu di dox ci kaw Eumeu Sène ak sañ-sañ Eumeu Sène tey jii Bombardier bu fekkee dafa jël coup bu dal li ko war mooy mu sulaat ay tànkam. déclenché waat Leewtoo waaye bu jëlee ku war ta fay automatiquement. Bombardier waaw warul fayu. warul fayu. ndax bu fayoor dina juum. kon romb ji làmb ji waru cee juum. waru cee bu ci juumee rek daanu bu ci juumee lu toll nii daanu waaye Eumeu seen bu sàgganee ba Bombardier dugg ci làmb ji ba ak am accès ci ngembam ndax Bombardier lu tax war am accès ci ngemb Eumeu seen mooy Eumeu Bombardier li ko dalee ci ndigali ci cuisse bi jëm ci kaw dafa am benn poids bu fa nekk boo xam ne bu fekkee loxo góosam dafa dugg. Hmm. lépp ci poids bi ci kaw ngeen bu Eumeu la koy teg. waaw ndax da koy bàyyi ci loxo gauche day jël poids bi sëf ko Eumeu Sène. Mhm. kon te ji Bombardier combat bi combat avantage la ñoom ñaar li Bombardier di mën a bëree mën a bëree mën a bëree Bombardier dinaa la wax leen moog Eumeu Sène dañoo am loo xam dañ dañu ko séddoo. Eumeu Sène li muy nekk ndaanaan ci làmb. Mhm. dafa am lu mu mën am lu mu tëlee. moo Eumeu Sène waaw lan la li muy mën a mën a bëri ci làmb am na lu mu mën a am lu mu Eumeu Sène xeexam crochelon lay dóor yoo xam ne day dóor gauche droite. ay laaw ay laaw yoo xam ne hmm. bu ko dóoree day arrière benn pas. Hmm. bëgg a agsiwaat combat bi du ko bëree noonu. ndax bu su dóoree benn pas crochet gauche droite boobu Bombardier bu koy song si du ko song song boo xam ne ki songu tànk lay doon Bombardier da koy naax si te bu ko naaxee da koy bëgg a tëru xëcc ko ba mu tafa ci kawam. bal ko waaw bal ko pour mën a jàpp ci ngembam ci loxo góosam. kon te Eumeu Sène war na nangu Bombardier di yor loxo góosam di bu loxo gauche bi jàpp rek Eumeu Sène ki danger. kon Eumeu seen lu mu mën a moytu mooy na fexe ba bombardier bu mu jàpp ngeen. xam nga loolu lan ma koy indi. Hmm. mu atelier bombardier. woo ko ci xeex far force mooy lu koy woo xeex far force mooy. bëgg xeex xeex bañ xeex bañ xeex xeex. mooy dugg ci biir garde Eumeu bombardier <laughs> dur ko croisé loxo bu droite bombardier di fayu mu song ko ci tànk bu ko songee ci tànk bombardier bu baax dootu xeexati day jéem a fexe ni Eumeu Sène génne ci tànk ba mu bàyyi tànk ba fa yàlla àgg ci ndigli bu àggee ci ndigg li nag boobaa caxabalu Eumeu Sène day day réussir boobaa mën na ko seize mu réussir. seize boobaa mën na ko tour mu réussir. mais bu bàyyee ba Bombardier am nekk à l'aise ci biir combat bi ay problème da koy dikkal. Hmm. Hmm. combat bi dóor mu daanu mën na ci am. mën na cee am. ci kaw. mën na cee am. ci kaw mais coup perdu lay doon ku bu kenn du foogee. kenn du ko yaakaar du ko yaakaar. moo tax nee naa la. Euh, Bombardier warta xeex te jàppul. warta bëri ta jàppul hmm. ndax ku perdu boobu laa koy bañal. ku dugg ci ak sa jàmm mën na ko mën na laa dóor. gis nga gis nga Eumeu seen li muy nekk ndaanaan ndaanaan yëpp combat bi waru cee déplacé wu. lu kenn mës ta wax laa lay wax. luy loolu warul déplacé wu. warta déplacé wu gauche warta déplacé wu droite. warul def na dem kon mu dem ginnaaw. non non. kon attaqué rek la war ko war a bëree xam nga lu tax loolu. ndax am na côté boo xam ne bis boo déggee ñu ne Eumeu seen déplacé wu na fa rek. Hmm. dina jël croche perdu boo xam ne ñu arrangé wu. day dugg ci sang bombardier la daloon zos ba muy bëree guy gi. waaw kay ndax bombardier day am benn tànk boo xam ne nii. <laughs> saa yi ko taxawee ba suul tànk boobu rek kuu baa cee topp. ndax Eumeu seen kuwam fii lay jóge ci ginnaaw. Hmm. waaye bombardier ay kuwam fii lay jógee. Hmm. moo tax bu Eumeu Sène déplacé wu ci benn côté rek pour crochet menton bi dal ko day yomb. dëgg la ndax bombardier koo gën a jot ay loxo. kon Eumeu Sène combat bi warut bàyyi sax bombardier dafa li si di xeex ko war a seere imposé ko xeex bi far force boo muy jë ko a fayu Eumeu Sène juyul ak moom. Mm-hmm. combat bu compliqué la nag. combat bu compliqué la combat bu serré. Mm. waaw ci wàllu mystique boo leen doon xool ñoom ñaar ci seen open press nan nga gis daa mel ni ñoom ñaar ñëpp fonk nañ ko de. xam nga tey jii dinaa la wax leen nga dégg ko. Mm. ku ci jekk esaan ngay jekkee ci côté mystique. ñoom ñaar waaw mais munoo jekkee sa kër. open press mënoo xool mbër xam ne ki moo jekk. waaw xam nga làmb bu leen di jaawalee gàllaaj ak tegtal du benn. gàllaaj ak tegtal. waaw du benn non non du benn. bëri na lu mbër di def tegtal la. Mhm. waaye gàllaaj kenn ñëmu koo def gàllaaj gu baax gi daan mbër kenn ñëmu koo def avant ñetti fan ñeenti fan avant làmb. Mhm. Mhm. en général da ngay gis mbër sëf mbër nga toog ba ci yàgg ñoo ne làmb gi def na quatre jours nga dégg ñu ne mbër ma dafa am fracture wala dafa am genou boo xam ne dafa claqué. sëf yooyu moo koy waral. soo gisee làmb ca na côté mystique ba bëri na li ci mbër di def bu ñu suba la làmb ji lañ koy def. ca guddi ga guddi ga lañ koy def. mooy alaway xànjar yaag yenn bagage yu sew yi cay nekk ak tegtal yaag sarax yaag rend yaag gineen ndawal yaag yooyu yëpp yi ñuy sarax ci wàllu làmb day am yoo xam ne nii mooy saraxu ndam yi ci ëpp bu ñu suba la làmb ji lañ koy def ak bu ñu suba la làmb ci suba gi. mais hmm. bëri na li ñuy def pour ñu bañ a jàpp bàyyi jili moo tax ñu koy def. Hmm. bëri na li ñuy def pour ñu bañ dugal fenn fi bàyyi jili moo tax ñu koy def gars yi nag dañuy jaawale galaaju làmb ak tegtal ci làmb du benn te galaaj bëri na lu ci ëpp doole li ciy daan mbër du ñëw ci làmb ji. déedéet du ñëw bi. ñoom ñaar. Bombardier Eumeu Sène ku daan fan la mën a yóbbu ci làmb. fenn rek leen mën a yóbbu ñoom ñaar. Hmm. Bombardier dépassé na koo daan ci làmb. làmb fan la toll ci làmb. loo am ci làmb la dese. loo am ci làmb. Hmm. waaw. Hmm. te mu ngi am ci làmb de. kan la Bombardier di daanati ci làmb ñu ne acam amul. Eumeu Sène ma ko daanoon. Hmm. ña daan Eumeu Sène. ka daan hmm. Eumeu Sène la Bombardier daan. dëgg la. benn point rek a fi nekk. Hmm. Tapha Tine kay mooy bañ jël benn combat taxaw xaar dimanche. waaw oh, Tapha waaw waaw bu amee mbokk. bu dimanche yi nënd lu mag lay yenu bu ñuy présenté Eumeu Sène ak Bombardier mu ñëw teg seen diggante. ndax ñoom ñaar kenn mënu cee bëri te kenn te bëriwul Tapha Tine. Hmm. waaw ndax Boy Niang dafa dugg Pikine réussir fa ci Boy Niang Tapha Tine. Hmm. daa dugg Pikine réussir fa ci Boy Niang te Boy Niang euh, poulain la. dëgg la. te ndaanaa ni ñuy coow ci làmb ñu ci bëri dañoo teggi Tapha ko jël. lan moo tax. arrangé wu leen. Hmm. poids lourd boo xam ne day entraîné te tëliwut bëri la. tëliwut waaw. mais tafaatin Tine kon ñoom ñaar ku daan. déggoo li ma la wax mun naa ñëw tafaatin Tine may ko revanche. dé Eumeu Sène musul bëreeg Bombardier. musul musul bëreeg Tapha Tine. baa ji lii ma lay wax nii dinaa la ko wax nga dégg ko. Hmm. Tapha Tine ci boppam. Bombardier bu nekk sa combat ak Tapha ñi mu ci ibbi gémmiñam Eumeu Sène bu nekk sa ko ak Tapha Tine ñi mu ci ibbi gémmiñam. kenn ñemewul wax du ma bëri. non non ku ko wax rek da koo ñemewut. ndax arrangé wu leen. waaye guddi yii ñu toll dimanche bu fekkee Tapha Tine am nay mbokk. Hmm. na sol tisetam bu rafet sol jiinam bu seere ànd ak i rakam. Hmm. bu ñu Eumeu Sène ak Bombardier ñu ngi leen di présenté mu yenn lu mag ñëw ba seen diggante sampal leen ko. ki ci daanu ñu ci bari dañuy dégg ki ci daanu am na ñu mën a bëreel ñan nga jàpp ne ki ci daanu war naa am na bëre ñoom. déggoo li ma la wax bombar Bombardier Bombardier tey jii ku ci daan man moom ay gën a ñor. parce que damaa dégg yenn supporter walla yenn xam waxtaankatu làmb mhm. ne ci daan mu daanu mun nga am guy gi yoonu làmb nangu na la. waaw ndax guy gi moog Eumeu Sène doon nañ ko dox te guy gi du bëre ak Bombardier ndax ñoom ñaar ay mbokk yi jegante lañ. Hmm. waaw jaaxlu làmb rek laa lay wax waaye déglu bu baax lii ma lay wax. Hmm. làmb de toll foo xam ne nii Tapha Tine dañ ko war a jox sansam ci làmb. dëgg la. te dinaa la wax leen nga dégg ko fa yaxya tolloon ci làmb fa yaxya tolloon ci làmb téye roi des arènes hmm. téye ko benn temps bu diire bi bu Tapha amee mbokk ci làmb bu amee ay mbokk ci làmb bu demee ba téye roi des mën naa yàgg ak moom. moom Tapha tax Tapha Tine roi des arènes mën naa yàgg ci moom. super lourd bu mu ñemee entraînement ñeme bëre te defut boppam star la. waaw loolu gis naa ko ci moom. Mm-hmm. bu sumee koo nga ni gonga. Mm-hmm. su bëree nga xam ne tëlewut. dinaa la wax leen nga dégg ko. Mm-hmm. mooy poids bu dégg daal ci làmb te ñam daan àndal rek lay àndal. moom Tapha Tine waaw. xale yam daan àndal ci débuté làmb ba léegi ñoom lay àndal. bëri na ñu bëri seen làmb yàqu na forcé nekk nante moo ko yàq. doon star. waaw ndax mbër dafa am lu ko jik yëg waaw nekk mbër. non mm-hmm. mën ngaa yëg succès sax te ne te teewul nga nekk mbër. Mm-hmm. waaye lay def mbër mooy nga nekk mbër am loo xam ne ni ku la xool xam ne kii mbër la am na ñoo xam ne loolu moo denc ñoom. Mm-hmm. waaye daal diggante a seen ak Bombardier nekk na combat boo xam ne nii record yi mu bàyyi xel. ku ne la cinquante cinquante am na ci nag waxu la lu am. cinquante cinquante. Mm, Eumeu Sène dafa am lu am ci làmb Bombardier am lu ci làmb. Mm-hmm. ku ci bàyyi sa mëneen sa morom ci réussir te dina ko gañe. maa ngi lay jaajëfal bu baax Fadam tu Fadam tu sama xarit bi. Mm-hmm. Fadam tu làmbaloog Fadam tu mi nga xamante ni bu waxee ci làmb ñëpp dañuy xam ne macha allah li muy wax xam na ko maîtriser na ko waaye teg na ko ci yar ak teggin. Mm-hmm. teg na ko ci dal macha allah yàlla na xam-xam bi yokk. maa lay jaajëfal bu baax di la kontaanee ci teew bi nga xamante ni teew nga ko fii tey ci wasaare. Baye Djily maa ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm bu baax. Hmm. di ñaanal waa wasaare yëpp nga xam ne balaa diwén ci heure bii yàlla na ko yàlla def télé bu mag ci barke Sidi Aboubacar si ma yaakaar. amiin yaa rabbal waaye nag daa am loo xam ne dama la koy dégg nga dégg ko. Hmm. dafa am benn kilifa gu mag gu ma gis ci réew mi gi nga xam ne nii tey jii bokk na ci ñi nga xam ne tey jii ñu ngi yokk réew mi. Hmm. muy maam Thierno Ibra Faati Ndaamal Daaru hmm. man de taalibe Serigne Babacar Sy laa waaye yàlla da ko may loo xam ne nii yàgg na koo may doomu aadama hmm. ñu jël doomu aadama yooyu di leen def ay morso fompokaay dëgg la te maam Thierno Ibra Faati yàlla may na ko kàllaama yoo xam ne nii génération bi gën a jëfe ci génération ñoo ko topp hmm. mooy ñi am vingt ans jàpp trente ans jàpp quarante ans dëgg la mu jël xale yi te chaque jour message bi muy gën a lancé ci kanam xale yi. Hmm. mooy fonk leen seeni waajur dem leen ngeen liggéey te dem hmm. jaamu ji yàlla. man nag maam Thierno xaw ma ko. Hmm. mosoo koo gis. mosuma ko gis waaye maa ngi koy ñaanal. yàlla fi yàlla bàyyi. ndax jaamu yàlla ci doomu aadama. mooy li ngay xam li la yàlla may ba pare nga jël loolu di ci jaamu yàlla. dëgg la te maam Thierno ndaw ñu ko yàlla booleel mu ngi ciy jaamu yàlla. muy koo xam ne nii réew mi dañ ko fonk réew mi dañ ko tatagal amul murit tijaan laayar xaadir ñëpp ko bokkandoo bëgg ndax te jii ci kàddoom lañ ko bëggee dëgg la maam Cerno Ibra yàlla ko yàlla doolu sutura amiin yaa na mu bëgg daaru goye mel ni màkkatal mu karamam mm. ci taar ci lépp yàlla ko yàlla def mm. ci barke Cheikh Seydi Hadji Malick bi ma yaakaar mm. maa ngi nuyu njabootu làmb ñëpp di leen ñaanal jàmm di leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb dégg ngeen fadam ci xeetu waxtaan bi nga xamante ne waxtaan nañ ko